waaw tey waaw salaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw ba nuyoo ñëpp sant ñëpp mënuñoo jiital suñu kàddu te ñaanal ñu ñu bokkaloon xeex bi te yàlla jëlee leen fi muy ay nit yoo xamante ni yàlla dogal ñu amoon yaakaar dëkk fii ak seen njaboot tey ñu jiituñu ñu xam ne àddina noonu rek te da nga fii nekk suba nga jógal fi ñi njëkk a ñaanal nem si yàlla bay di sëy bi ñu joxoon fii amoon yéen ñu dëkkee ko. suñ borom jëlee ko fi ñu koy ñaana yàlla xaaral ko àjjana ak ñu bokkoon suñu te jóge fi tey suñ daje bi ñu daje rek war naañ ko gën a sàmm di ko gën a yokk ndax ngi ko àndaloon di xeex ba suñ borom jëlee leen fi bàyyi fi seen njaboot ñu ay xale di ay jirim war am fu ñu dëkk ëllëg kon ñun ñëpp war nañ fàtt suñu bopp te ñooñ ñu fi bàyyi ñu fexe fu am fu ñu dëkk ñun nag ak ndaqar ak jaaxle lu ñu am parce que dañoo dégg jub jubal jubanti ñu gis na njaaram Limaamu Laay bi amul jubanti bi fi am ay tappale liñ fi gis ak lu jaarul yoon. lu jaarul yoon mooy nit ki mënuñu laa jox trois hectares cinq cent ay nit moom ko ay malfaiteur ay sàcc ay wayu suuf jël ko séddoo ko seen biir loolu moo ñu li ñu jaxal te boobu ba tey depuis octobre deux mille vingt trois ngi dox di xeex dem OFNAC def lu ne yàlla dogal na plainte nañ OFNAC ba tey amuñu benn résultat kenn amu ci lenn lu la leer ñi fiy ñëw muy ministre bi ak ku mun a yabal day ñëw rek jaal jaal loolu affaire u tappale la tapale mooy ñi moom seen yëf. da leen di woo waxtaan ak ñoom bu fekkee da ngaa bëgg a jubanti mais li ñu gis ni ñu jubanti nga bàyyi waa impôt demen ñuy liggéey ñuy liggéey nga bàyyi cité cité lonage ñuy liggéey ñun ñi moom suñu terrain ay nit fakkati ko si ñun jéemoo sooy wax dara kon yow boo ne da ngay jub jubal jubanti loolu gëmuñu ko ñun mais ñoom dañu defoon benn commission commission ad hoc bi fan fan la fan la ci toll. waaw commission bi man dem naa mais bañ demee lañ ñu wax mooy yéen seen asset mi ngi fa kon war ñu koo jox kenn koo xamante ni waru koo jël ku dul yéen nga xam ne yéen a ko moom ma jàpp ne commission boobu ñu yéex nañu sa woo parce que nit bu fekkee da ngay départ bëgg a lijjanti lenn naka moom nga war a woo waxtaan ak ñoon mais boo demee ba bëgg a tëj say document bëgg koo jox président soog ñoo woo yaakaar naa woobu boobu yéex na léegi li ñu bëgg mooy li nga xamante ni ñoo ko moom muy suñu alal ay nit jël seen alal dugal ko si nga xam même bu ñu dugaloon seen alal te dëkk fii war nañ koo mën a dëkkee pakaay surtout waaye Sénégal lañ comme ñëpp doo jël ñoo xamante ni ñi ngi liggéey di ay magistrat ay xamante ni fañ dëkk amuñu problème fañ dëkk am nañ indemnité de logement ñu koy xëccoog ay nit yoo xamante ni ginnaaw yàlla lii luñ yaakaar ñu loolu luñ mën ta bàyyi bi passé newoon na ngeen nekk ñu waxtaan wax boobu bi la wax ñun gëmuñu si dara parce que doxul benn dox boo xam may nañu occasion pour ñu toog ak moom képp ku ñu war a bind bind nañ la képp ku ñu war a seet dem nañ fa xaar leen nit leen lool nag daa am fu muy yem ñoon ñi ngi dañu war a doxal terrain jàmbur la ñu ko moom te fii li ma wër te wër mooy seen bakkan ak suñu bakkan ñun wala wala ñun parce que nit doo jël sa alal def ko si ay at deux mille dix huit ba tey ay nit ba koo jël jël ko jaay ko lekk xaalis bi loolu ku ne ne dana yomb da ngay nax sa bopp loolu mun ta yomb te mun ta nekk. est-ce que am nga am ngeen ay papiers légaux. lépp luy document nga xamante euh, conseil municipal bi ñoo ko voté. bi diiran ba mu commencé deux mille dix huit ba tey amul benn document bu ñuy soxla te ñu yoruñu ko maanaam ñun dañoo yor lépp téye ki yor lépp téye nag nga bàyyi ko fa jox koo xam ne yorul dara muy waa impôt domaine ak ñoo xamante ni seen yoon newu ci ñu séddoo ko loolu mën naa xamul fan la tegu lanceur direct la ñu wax man maa ngi nii xam naa li xew nee naa ay nit a ko sàcc nañ ma woo ñu ma fay bu ñu ma protéger ma wax leen ki ko jël ak ñi ko jël ñan la. waaw mais ñan lañ effectif ñan lañ effectif. waa impôt demal ñëw si sa doo yi jël nañ commissaires yi jël nañu ay nit yoo xam ne tekk wuñ dara jël nañu ñi moom seen alal te moom ko nekk nii loolu nag dama ne jarul wëri fu sori man maa ngi nii li may wax lu leer nañ la jarut a protéger jarut a làq jarut a nëbbu damaa bëgg ñu woo ma ñu delloo ñuy seen xaalis wala seen kër ñaata ngeen collectif bi ñaata la ak ñaata la ci ay hectares hectares yi trois hectares cinq cent la lañ ñu joxagum mais trois hectares cinq cent yi sax doyut ñaata la nga war a nekk. la mu war a nekk la war a jox mu mat. fan lañ leen ko war fii njaarim li am laay bëgguñu fenn. fii ba ko kenn bëggul. lañ ko bëgg ñun. fii lañ ko kenn bëggul lañ ko bëgg ba yow man tey sama taxawaay bi ñaari taxawaay la bi njëkk bi mooy bii moo xam dama koo fekkee ndax fekke seede la dama see mën a indi ay leer parce que Mamadou Bay di sëy ba mu koy joxe fii la ma fekk beneen bi askanu géejawaay boo xamante ne loolu war a dëkk tribunal bi deux la ñu waxoon huit cent yi dañ koo lii yëpp dañ ko sàcc joxe ko yow noo mën a jubbantee te mënoo wax huit cent hectares yi ñokk fii kan ko jox ak ku moom maire bi fi nekk nangu seen wax yeneen kenn sañu seen wax yow boo bëggee jubbanti kon bala ngaa jubbanti dara lii ñu sàcc mu leer nañ nañ ko jox askan bu dëkk si sinon suñu bakkan la laaj ah ñii sàcc ñu ko sàcc directeur domaine maam boo jaaw moo duggay ñoo ko sàcc jox ko ku la neex collectif bi si la toll collectif bi ñu ngi si quatre cent et quelques personnes quatre cent et quelques personnes yoo xamante ni depuis deux mille dix huit ñu ngi daw ñii jóge fi ñii feebar nañ ñii tëj nañ leen ba tey amul kenn ku taxaw pour défendre leen. ñii dee nañ ñaata des. quarante personnes lañ ci jot a jox bu fekkoon kenn amul sax nga mën a wax nañ ma soo gisee ma taxaw mënu maa bàyyi ñii mais mënu maa ànd ak ñi ñuy sotti ma seppi ma jox ma jox keneen loolu mooy noppil te du ma noppi. Ah loolu mooy noppil te du ma noppi lii nag suñ bakkan la laaj. léegi soit quarante personnes yi ñuy jox ko defee. dañoo tànn rek ku si ëpp coow ñu jox la ku si ëpp coow ñu jox la ku amul coow duñ la jox ñeneen nag ñoo ko sàcc jaay ko waa impôt demee ñoo ko jaay ak magistrat yi ñu jël jox leen ak i commissaire de police yoo xamante yu leer la aki i rappeur yoo xamante ni seen yoon newu si liñ leen di xamal nag moy fii nit du fi teg birig te seen borom nekk fii. Ah bakkan la laaj. Ah loolu moo gën a ndaw si li ñu war a def. maanaam ñun lu bëgg mooy mécaniciens yi jox nañ leen ñoon seen hectare ba ñu war a dem fi ñu leen war a yóbbu ñun am nañ suñu géomètre am nañ suñu lépp bu neexee yàlla suñu borom mois prochain dinañ ñëw tracé indi suñu géomètre ñu samp suñuy kër parce que nit ki bu dee da ngay ak moom woo ko si njëkk boobu ba tey ngeen di dox si njëkk nanguwul wuyu si njëkk dafa am beneen façon booy doxee ah taxawaay bi nag suñuy kër la ñuy jël xam naa ko mun naa ko génne te dinaa ko jox seen borom bu dëkk parce que loolu moom la fi bàyyi tey jërëjëf merci parce que ñun ba ñuy jënd te jënd mu njëkk ba lañ jënd kayit yi mel ci facture yi ñu jëndee terrain mu ngeeg ñun man sama càmmiñ boo xam ne bonne volonté la moo jënd ay terrain ne bu ñu ko joxee terrain ñu may ñu ci ñañu ko jaay ñu ngi dund ka doon jël si xaalis mu ngi toog maire baa ngi fii ak secrétaire am ñoo doon jël si xaalisi ñun ay témoin oculaire man dem naa domaine dem naa préfecture man bi kon léegi xam nga lu ngeen di ñaan fa ñu jënde woon suñuy terrain waaw nañu jox suñuy terrain ñaanu ñu leen may ñu dañuy jënd facture yaa ngi waaw terrain boo jënd jox nañ la ne yow lii tàngo ko jënde yëpp ñu ngi ko boole ak kayit yépp yëpp kon bu ñu demee bay jox ñeneen mais ci tribunal bi ñun am nañ fa terrain man sama càmmiñ moo ci bokk du jën jënd ne bu pare daf may may te bonne volonté la de de du booba béy dee ngi fi waaw dem nañu domaine dem nañu préfecture waaw ah, état du Sénégal li ñu koy laaj mooy dañ la jub jubal jubbanti te teere yi ba ñu koy jox ba ko euh, Macky Sall ne nañ ñu ko jox ñoom dañ ne dañ koy dagg ñu daggal leen nag ña ko neex nag lañ leen daggal ñii di jaay ñii di def leen neex ñu ne leen ñaan ngir yàlla dossier bu ñu laaj am nañ ko date bi ñu ko jëndee am nañ ko xaalis bi am nañu facture léegi ñoom nañ ñu jox suñuy teere ku nekk nag fa mu placé woon nañ la ko jox bugguñu ajan jak ndax fii lañ ko jëndee ah ndax mënoo dëkk géej waaye amoo terrain nga dem ba ñuy jaay terrain njël terrain yi di ko jox ñeneen duñ ko nangu waaw ndax ku gum ba jox ko waa yalwaanam nag nañ ñu jox suñuy terrain bu ñu laajee sax ne kii lañ jox xaalis bi lépp leer na ñu ngi demandé président Diomaye premier ministre Macky Sall ak directeur u impôt domaine xam nga Macky Sall ak directeur u impôt ñu dimbali ñu ngir yàlla jox ñu suñu yëf ñoo ko moom fii nag lañu bëgg waaw merci. Sénégal. madame Fati présentez vous. je madame Fati Muriel Chantal Ndeki. voilà mhm. euh, que confrères d'accord euh, bonjour à tout le monde c'est avec un cœur plein là parce que je peux même pas parler parce que j'ai des aux yeux ce que nous vivons. Euh, ce que nous vivons euh, en ce moment, nous sommes prêts à y laisser notre vie. Parce qu'on ne peut pas débourser de l'argent depuis 2018 et courir, pour, pour, pour euh, courir devant des, gens qui en possèdent. Parce que moi, ce que je ne peux pas comprendre, c'est euh, les gens qui ont, à qui on a donné ces terrains. Ils, sont, déjà pleins aux as. Tu ne peux pas euh, donner des terrains à des gens qui ont déjà des maisons au profit des gens qui sont en locataire. Ça, c'est des choses à déplorer.